objectif bi ñu ci am mooy dañu xam ne dañoo war a bàyyi suñu xel yi suñu doom yi parce que amuñ seen temps à chaque fois ñu ngi ci école yi léegi ñu ngi gis à travers la télé ñeneen ñi di organiser ay fête di jox cadeau seen doom yi ñu ne tey nañ yendoog ñoom bégal leen xam ne suñu nawle leen xam ne ñun ñii seen parents bàyyi nañ leen xel loolu moo ñu fi dajal on plus de on a plus de soixante euh, élèves yoo xam ne war nañ leen jox mm-hmm. kado waaw nag violence waa surtout ça violence yi ñu gis euh, ñu koy def xale yi te xale yi ñun amuñu kenn ku leen mën a jooyal parce que en général ñiy def loolu xale yi dañuy surtout loolu loolu moo ñu gën a métti daal ñun en tant que yaay. waaw éducation am na si solo parce que xale soo ko yaree jàngal ko xamal ko àdduna dina am yu bëri lu ñëw rek dina xam nu muy def ba moytu ko fu muy teg tànkam surtout dina am lu muy jomm am lu muy rus am lu muy moytu. xale yi dañ parents yi dañoo war a gën a taxawu seen xale yi gën a nekk seen côté. si si domaine bu ne nag parce que doom aussi nawle la doo am sa doom rek bàyyi ko ci mbedd mi mbedd mi lépp fa nekk sa doom à chaque fois boo xëyee li nga koy wax yar bi day continuer même su ñëwee masa bu génnee ñeneen lay dajeel mën nga yar ci biir génn ci bitti ju yàq ko mais dee ko sàkkul ñi muy àndal fa muy dem ak lépp ba pare nga di ko taxaw aussi fexe ba buy génn bu mu xiif buy génn bu mu mar bu dara fëkk bëtam ci mbedd mi surtout loolu aussi ñu di ci bàyyi xel. suñu marraine mooy madame Mbaye euh, ñu gën ko xam ci Nen Ndiaye moom lañ ko dara jaale woon vraiment euh, lu tax ñu tànn ko aussi réccu wuñ ko parce que taxawaay bi ci war a def yëpp def na ko ci. tey nag malgré amoon na six programme fi la ñëw ba presque ay treize heures moyen la fi quitté wëcc na fi aussi famille yëpp wëcc na fi ay nitam ñu ngi toog pour jëmmal ko. ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal vraiment fu mu bëgg a egg fa. kontaan nañ ci moom trop te moom porté wu na volonté ñun aussi duñ dellu gi ginnaaw que à chaque fois bu bis bu ñëwee incha allah bëgg nañ ko defaat te fii ak moom fi tamit bu fi nekkee ñun di ko ko jox incha allah. syndicat moom liggéeyam moom mooy fexe ba créer ay conditions yu baax pour jàngalekat pour école pas seulement pour jàngalekat mais pour école syndicat bu ne nag am nga sa autonomie nga dérouler sa plan d'action mais ñun dañu àggagul foofu. ci ay renouvellement lañ génn et suñu secrétaire général mi ngi def ay tournée au niveau national mi ngi déglu jàngalekat yi pour également mën a xam lan mooy seen tawat ak lan mooy seen jafe-jafe ak lutte bi quels sont les moyens le plus efficaces lañ mën a jël ba bu ñu xeexee xeex bi ñu mën ci am am ndam foofu lañ tolloogun buñ ci noppee incha allah danañ woote ndaje mu mag au niveau national euh, tënk suñ plateforme revendicative fexe ba incha allah bu ñu ko dugalee euh, ñu am ci ndam foofu lañ toll. ah mais ku ne ak sa stratégie mais li ci am solo mooy les moyens de lutte il y a les de lutte mais il y a le temps de lutter pour que au moins ñu mën la dégg. mais également nga am gain de parce que jamono jii dañu jàpp ni euh, dëkk bi jax na mën ngaa jóg ñu jëmal ñu wéetale la foo xam ne nekkoo fa wala ñu teg la loo xam ne mënoo ko war a nekkoo ko wala ñu def loola loo xam ne nii wax dëgg yàlla xaj na ni nga ko bëggee woon euh, du loolu la parce que da ngaa déglu pression jàngalekat yi mais xeex daal danga ko war a préparer ba boo dóoree daal wax dëgg yàlla nga am ci ndam ñun daal wax foofu lañ toll te xam nga li ma lay wax. defe naa ne ñun duñu entamé ab xeex di ci am regret jamais. parce que problème yi bari na les actes tardent tardent à sortir su génnee également ñu prendre que en compte dans le traitement salarial day yeex bu nit ki génnee àdduna liggéey les les les les les radiations la pour pour ñi nga xam dañuy décédé wala dañ retraité mais day day dafay yeex. te yooyu yëpp defe naa ne war nañ cee trouver ay solutions bien que ya a des avancées parce que am na au moins la fonction publique locale maintenant qui est tout proche mais amagul prérogative yi nga xam ni xaj na bu ko ko joxoon du aajo ñuy dem dakaar wala ñu koy laisser à l'appréciation du ministre je crois que foofu daal war nañ ko jàngat ak les les décisionnaires yi nga xam ne ni dégguñ ci non bien sûr les CERS def na ci séminaire rencontrer le décisionnaires pour jàngat mbir mi pour mën cee am dam je pense que ni jàngat nañ ko. séminaire bi am na defal nañ mbir yi defal nañ mbir mi lépp am na li ñuy xaar nag mooy application maintenant li nga xam ne waxante nañ ko a gouvernement bi mais ñuy jël en compte les années d' admission du diplôme mais également retraite bi ñu xoolaat ko parce que vraiment bu ñu retraité dañuy sonn loolu daal ñu ngi ci te yaakaar naa ni gouvernement bi am na ci yum def am na yoo xam ne am nañ ci ay promesse loolu lañ bëgg nag bu ñu xeexee mu nekk loo xam ne dañuy am solution définitive